اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واصل حياتي قرآن fidèles téléspectateurs de la TFM salaamaaleykum daal leen ak jàmm ci seen beneen numéro ziar euh, beneen numéro nag beneen invité mais balaa ñu si dem dama leen di bàyyi ngeen nuyoon teg seen oustaz préféré oustaz Modou Fall jërëjëf Adja Cécile maa ngi lay nuyu maa ngi lay ziar maa ngi lay ndokkeel itam ci weeru sell wi ñu nekk di ñaan yàlla lépp loo xam ne jaamu nañ ko ko ci weer wi yàlla nañu ko yàlla nangul ci darajay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. wasalaam merci beaucoup oustaz tey nag ñu ngi dalal ci suñu plateau honorable député euh, Mame Diarra Fam muy député du parti démocratique sénégalais ñu amoon ko l'année dernière amat ko tey ñu koy remercier ci disponibilité bi euh, madame euh, le madame la députée pardon ñu ngi lay dalal. merci beaucoup euh, Cécile asalaamaaleykum wa rahmatullah euh, jërëjëf al oustaz Mamadou Fall sama doom maa ngi kaa ziar di ziar borom kër gi euh, alaaji Youssou Ndour sama càmmeñ bu baax bi euh, nga xamante ne fa tabarakallah maa ngi kaa ñaanal wér ak wérle di nuyu sama rakku bopp alaaji Boubacar Ndour ma nga xamante ni ma nga toog ca foofee ca Papa Cheikh sama beneen doom bi maa ngi kaa di ziar Sénégal yëpp di ziar Aïssatou sama doom bi moom aussi. honorable député Mame Diarra Fam ñu ngi dem ci ay élections euh, sans PDS malheureusement mais que vous étiez quand même bien parti ñu laajte seen parti nan ngeen di dundee euh, écart boobu noonu si on peut l'appeler comme ça. waaw ak euh, émotion ak consternation. parce que ku xam parti démocratique sénégalais xam ni parti bu politique la parce que parti politique am na mais parti bu politique am na parti bu politique la parti bu am ancrage dans le landerneau politique sénégalais euh, ki ko jiite di le président Abdoulaye Wade ma koy ñaanal gudd gi fan ak wér ak wérle yàlla sàmm ko sàmm njabootam sàmmaale ñun ñi nga xamante ne ñooy doomu sénégali parti boobu candidat am di may sa Wade moom la ñu éliminé deux fois de successives parce que boo leen dee xool 2019 c'était comme ça euh, tey aussi lii amaat euh, boo dee xool suñu militants yi neexu leen euh, dañuy dafay metti parce que nga préparer man mi di wax ak yow tey boo demee sama sama magasin yi da fay gis presque plus de des milliers de t-shirts yoo xamante ni dama ko dama ko préparé woon ay banderole ay tissus lépp pour fexe euh, euh, noo xamante ni bu Karim ñëwee ma ànd ak moom dem euh, campagne électorale vraiment ça a une surprise parce que kenn foogu ko woon c'était passé day inattendu sax laaj koy tuddee yàlla dogal ko ñu ngi koy muñ parce que ñun parti lañ boo xamante ne Ablaye Wade daf ñu jàngal muñ ak gëm yàlla parti boo xamante ne ku feebar mu seeti ku deele mu jaali kuy ngénte mu dem fa ndawtali parti boobu moom la ñu am mooy parti sénégalais mooy parti démocratique sénégalais donc loolu bu amee Ablaye Wade def ñuy wax rek delloo leen seen bopp ci yàlla xam ni lu tooy dina wow te luy dàq te taxawoo yàgg-yàgg di nga ko jàpp. dëgg la ce n'est pas chose facile nous imaginons bien mm-hmm. euh, mais y a-t-il euh, peut-être benn possibilité benn alternative ci ginnaaw est-ce que PDS euh, tey jii à quelques jours euh, de l'élection est-ce que am na benn parti boo xam ne dina dem rallier ak moom wala benn candidat bu muy soutenir en particulier xam nga ñun moom toujours ñu dañuy bàyyi suñu euh, kilifa di la président Abdoulaye Wade mu defal ñu choix ndax choix yi mës a def yëpp choix yu correct la fa tabarakallah euh, bërki démb gis ngeen candidat bi génn ni bàyyi nañ lépp ci loxo ki nga xamante ni mooy le président secretaire général du parti ndeysaanam mu nga toog ca toogaayam bu jekk bu sell ba ca kaw lal ba soo ñëwee mu tiim kayit yi wax lépp xam lépp nag loolu yàlla mayetu ko ñu bëri ci âge ci état mu dirigé euh, pays bi 12 ans mais lépp moo koy lijjanti woo président groupe parlementaire woo keneen woo keneen toog ñu toog mu décider wax jàpp naa ni góor gi du seetaan ay élection Euh, ci jamono bi ñu nekk nii te du ci yëngatu wala du ci yëglu ba ñëpp xam ni bokk na ci je pense que comme ni ngeen ko déggee candidat bi wax na ko tractation yi bëri na ku nekk nga koy woo ñun aussi ñun ñii nga xamante ni nu sommes de responsables ñëpp a ñuy woo mais nit ñi aussi dañuy toog déglu parti bi ba waxtaan am ñu jël suñu responsabilité ñun ñëpp dem xool dëkk bi ci kan lañ ko war a teg parce que dëkk bi dëkku Serigne Touba mm-hmm. ci ku ko xeebul. dëkku maam alaaji malik ci ku ko xeebul dëkku maam Limaamu Laay mii ci yoof ci ku ko xeebul dëkku bàyyi ma bàyyi ñas ak dëkku Bukunta bàyyi Bukunta Njaasaan bii ci ku ko xeebul ci ñun ñi nga xamante ne jàpp nañ ni réew mi ay mag a ko téye dëkk bi boo koy teg ci loxo danga koy teg ci loxo yoo xamante ni ay loxo yu sell la ay loxo yu wóor la donc je pense que Ablaye Wade ne ménagera aucun effort pour d'ici quarante huit heures ou vingt quatre heures mu génne un communiqué pour orienter le parti. incha allah merci beaucoup pour le partage léegi nag ñu jàlle ci question Ramadan bi ñu bëggoon xam euh, en fait euh, benn journée Ramadan euh, boo ñu mu boo mun a partage ak ñun c'est-à-dire le matin boo yeewoo ba sa heure ndogu diggante le travail ba ndogu comment ça se passe. waaw heure bi <laughs> waaw man tàyyeelu ma nag xam nga man tàmm naa li eh, liñ wax li kii di wax labooro labooro <laughs> bon tàmm naa ko damay damay yeewu rek wàcc sama kawlal fa tabarakallah léeg-léeg may seetaan télé bi nii di seetaan Pape Cheikh Diallo wala may seetaan ni beneen jàpp beneen télé di xool ba trois heures du matin taf taf ma jóg naan benn kafe euh, rapidement dem tëdd xam nga mën naa am ma yeewu huit heures sauf selon sama temps su ma yeewu huit heures mën naa fi xëy dem ubbi sama bureau assemblée toog recevoir courrier su ma amee ay rendez-vous ma dox ko bàyyi midi waxtaan xam nga euh, ci assemblée parce que daf lay may daf lay may tamit nga perdre tuuti temps après nga ñëwaat nag commencer ndànk-ndànk dugg wax ak xale yi lii lañ war a lekk lii lañ war a teg lii lañ war a togg lii lañ war a muusal lii lañ affaire. ba heure ndogu jot. nga toog xam nga nga coaché tuuti. heure jot nga toog. boole ki ci waxtu julli yi ak waxtu yi nga xamante ni danga koy toog di ñaanal say waajur ak di ñaanal Sénégal parce que man dama tàmm dinaay def yenn saa yi bu tisbaar passé rek eh, naaj bi tàng trop parce que man sama papa bu ragaloon naaj la damay ñëw rek comme Touba lañ ko suul fa tabarakallah damay toog rek di wax ne sama papa daal yàlla bu mu dajeeg lu koy lu koy naqaral yow mal xiyaam parce que ñaan bi ma ñaanal eh, mus na ma ko wax mun ma bu ragal dara dama mus a am problème ak eh, benn tubaab parce que man dama xaw a kii tuuti ma am ak problème tubaab ma mooy que papa de man tubaab daf ma tooñ ma dóor ko fi may liggéeyee te Italie kenn du fi dóor nit mu ne ma lu mu la wax ma wax ko lim ma wax parce que eh, tubaab buggul ku ko chef soo ko chefee dafa lay wax ni la yow africain nga da nga war a dem nga taxaw ci mbedd mooy maanaam nga def jigéenu mbedd waaye yow waroo chef kenn ma dóor ma dóor ko après ma wax ko sam papa sam mu ne ma delluwaatal fa nga nekkoon nga dóoraat ko dara du la ci fekk. Euh, góor gi daaw dafa am ñëpp xam ko ginnaaw raay maa ngi koy ñaanal ni ma ñaanal yëpp maa ngi koy gis mm. heure boobu laa koy faral di ñaanal mm-hmm. di ñaan yàlla taas ma ci barkeem su ma paree jóg dem ci sama mag awa faam yendu fa ba ndogu ma daal di ñëw tëdd stock sama kër nag daal di commencé ndogu parce que moi je suis très très très familière ak sama mag yi ma bokkal ndey ak baay macha allah kenn rek laa ci am man ginnaaw raay foofu laay nekk généralement macha allah ma nag du ma ragal ma koor du ma buuba nduur quoi xam nga yaa buuba nduur yi <laughs> man dinaa leen di gis parfois ah li ñu a mhm. ragal koor quoi. Mhm. Mhm. ragaluma koor. léegi ma bàyyi la ak oustaz nga posé ko sa question boo am loo mooy euh, loo bëgg xam rek wala loo bëgg leerlu ci diine. oustaz damay laaj doo ma wax looy laaj. looy laaj comme ça bismillah dama bëgg xam exactement dama gis kenn mu ne ma dama am ay médicaments yu may jël entre. seize heures ba dix huit heures te il faut ma jël ko mun naa xëy bañ a lekk lekk lekk lekk mais su seize heure jotee su ma naanul médicament boobu boole ci lekk tuuti damay damay damay loof damay daanu parce que feebar la genre feebar la am may laaj ndax boo naanee médicament pour faju ci diggante bi est-ce que loolu day da ngay defaraat sa corps walla euh, euh, mun nga continuer woor encore alhamdulillahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashrafil mursalin sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ginnaaw bi nu sante yàlla sunu boroom julli ci yonent bi alayhi salaatu salaam ñu ngi am mbégte lool dalal sunu yaayu bopp muy ajaratu maam jaara faam mu mel ni laaj na laaj bu am solo ki nga xam ni dafa feebar ñu bindal ko garab yoo xam ni daf ko war a jël 16 ba dix-huit heures te foog mu lekk pour jël ay garabam dafay naan garab yi continuer kooram wala dafay bañ a woor kooku li ko sharia sant mooy mu bañ a woor parce que yàlla dafa wax ni fa man kaana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin oxar yàlla nee na képp koo xam ne wéroo nga war a jël say garab ñu bindal la ay comprimé yoo war a jël nee na su boobaa na nga xam ni dangaa feebar teggil nañ la koor gi kii ki mën a naan wala mu lekk ci weeru koor continuer kooram mooy ki nga xam ni dafa juum soo juumee ci bëccëgu weeru koor naan wala nga juum lekk da ngay continuer su jàllee nga fay mais comme da nga am feebar nag ñu bindal la garab ngay jël say comprimé kooku charia nee na kenn wóorloowu la dangay bàyyi ba koor gi weesu nga xool fan yi nga ci am nga fay ko yal na nu yàlla may dégg gu ànd ak topp wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. jërëjëf oustaz merci si leeral yu am solo yooyu noonu euh, waxtu yu ñu mayoon nag ci émission bi jeex na chers téléspectateurs ma si profité di euh, remercier suñu sponsor yi ku ci mel ni Ndiaye Jesner Ndiaye nag day jaay ay tissus yu rafet macha allah di ko jaay en gros di ko jaay en détail euh, mu ngi nekk foofu ci Pikine tali bu mag marché Zinc numéro am nekk 78 304. 20 04 mu am tamit benn euh, boutique bu bees depuis le début nag ñu ngi naan Fadia mais du Fadia euh, boutique baa ngi nekk Pikine encore euh, ci même zone bu mu nekk muy Pikine tali bu mag aussi wetu marché numéro boobu noonu nag mu ngi nekk 78 575 11 03 ñuy remercier suñu partenaire boobu di euh, waa groupe Sénico ak seen pâte alimentaire Amira nee naa leen boo leen tàmmu tàmmu leen si Amira neex na bëri na ay nutriments bëri na euh, variété seen large gamme bi mu ngi composé wu de spaghetti macaroni ak euh, vermicelle ñuy remercie toujours le groupe Sénico ak seen margarine Kadi comme ni ma koy waxee toujours neex na si seen pain ngeen koy utiliser soit le matin wala ngeen koy euh, utiliser si seen bouteille ngeen mun ko utiliser également si seen togg margarine kat yi raffinée et légère ñuy remercier suñu sponsor boobu di Orange Money mu ñëw ak yéen ci weeru koor bi ak xéwal euh, bëgg leen may weeru koor boo xam ne dafa neex weeru koor bu bëri xaalis mu leen di may 100 cadeaux suukaru koor d'une valeur de 10 000 francs par jour la ñuy mayee euh, totalité bi nag nekk 1 million donc kaal leen foofu noonu Orange Money ñuy remercier également suñu sponsor jus original distribution euh, exclusive au Sénégal et dans la sous-région par Nukuman Group jus original nag mu ngi nekk jus boo xam ne dafa neex euh, jus boo xam ne c'est sain c'est rafraîchissant sans colorant son conservateur euh, seen canette yi nag mu ngi am cinq parfums orange mangue ananas pêche ak cocktail ñuy remercier aussi suñu sponsor boobu noonu di Sénéfoot avec leur lait Nour et le céréal Mélolac pour les bébés balaa ñuy tëj émission bi nag chers téléspectateurs dañuy euh, baaxee suñu euh, invité bi honorable Mame Diarra Fam euh, cadeau yu ko suñu partenaires yi jox muy jus original bi nekk ni waa Sénico ak seen cadeau bu rafet bi ak waa Sénéfoot chers téléspectateurs nous vous donnons rendez-vous demain inchallah pour beneen numéro fii ci seen chaîne télé préférée TFM merci kalpe bi gën a yomb gën a wóor moo